amoon na benn polémique bu xewoon fa ne passé si basket bi yaa ngi wax góor gi si Dieng la ma da sama xel dem si euh, ñu ne moom dafay euh, euh, comment ça s'appelle infiltré non pas infiltré dafay intervenir si direction bi basket bi nu muy doxee am ñu ko décrier ni warul moom simple joueur kese la yow nan la nga ko gisee. xam nga joueur la mais am na droit wax ci basket bi. Mhm. parce que ci la bokk. ci basket bi la bokk kenn mënu ko génne ci basket bi. du sax basket ci yeneen kii yëpp am na droit wax ci. Mhm. jël position am nag moom la moom la concerné man sama position man la concerné keneen position ko moom la mi mel ne tey benn Sadio Mané ñëw di wax ci football ne ko noppi. ah du mënul nekk. non ma dañ ne dafay intervenir ci bu foo xamante ne moom joueur la mais mais si place su décision yi si direction bi euh, si staff bi foofu lay intervenir et tout loolu moom moo nekkoon. waaw problème bi. dafa dem bëgg bokk ci comité directeur bi rek. Mm-hmm. parce que président de club la aussi moom mooy président Kébémer basket club. Mm-hmm. donc comme que légiféré wuñu si am na droit dem mun a bokk ci comité directeur mais li gënoon mooy mu joué ba pare ba keroog mu raccroché. Mm-hmm. mu ñëw parce que góor gi ku ñu mën a génne ci basket bi. est-ce que loolu noonu du jox raison ñi nga xam ne dañuy décrier ni potentiellement mun naa am conflit d'intérêt que soo am nekk waa day xaw a jaxasoo. day xaw a andi ay jiixi jaaxa. Mm-hmm. sama parce que mais ar raccroché gul solennellement waxagul ne bàyyi na basket. Mm-hmm. kon su bëggee nekk. Euh, ci comité directeur bi di nekk joueur en même temps di décider waale. Mm-hmm. day xaw a métti. parce que waxagul ne bàyyi naa équipe nationale.